Euh, den si rôle am solo euh, Pape Ousmane na nga def. ñu ngi sant bu baax alhamdulilah. tey bi nga teewee ci li nga xam ne mooy euh, sunu làmb door ñu amal ko fii ci place cosaan bi place su njëw. kon tey lan nga euh, li ñu sentir mooy bu ne buy génne place su njëw boo ne place njëw rek wax nga maam njëriñ donc euh, lii ngeen gis fii tey mooy doof dellusee waat na ci làmb li mu dellusee ci làmb mooy suñuy doom ñëw nañu seet sa lébu gi boo gisee t-shirt yi ñu def lébu gi derrière Malick Niang Malick Niang mooy suñu mbër fi ñu toll nii dañu ko bëgg a samp mu taxaw. roi des arènes Modou Lo ci dëkk bi dëkk fi waaye nag bëgg nañu Malick Niang doon roi des arènes yoof képp koo xoolee tey li ngay gis nii war nga xam ne li bugg dellu seen ci lamb te dellu sa bi ñu dellu seen lamb mooy dañu bëgg samp suñu doom bi lii kan tàndeeloon yëpp mooy waxuñu woon ak li ñu war a waxal bi ñu toogee tey boo wax ak li ñu war a waxal ñu ñëw fii si njëw ngeen gis fi gaal ak rawante gis fi magi dëkk bi kon ngeen xam ne dellu si nañu ci làmb xale yi ni leen di wax yëpp mooy dellu si waat leen ci ñi xamee ne ñoo ne ci dëkk bi di ay kilifa ngeen wax ak ñoom bu ñu waxee ñun ñu taxawu leen ci làmb loolu nag la ñu commencé moo tax tey ñu teew fii dañu leen bëgg a jàppale parce que yow ku ne xamoon naka ci làmb Talla Diagne ak Jaraaf ak ku ne dégg nañ ko ci làmb loolu la ñu bëgg mu dellu see ci xale yi ni muy dellu ci xale yi nag mooy xale yi ni ñu ñëw wax ak ñun ñu def ak ñoom làmb dellu si waat ci yow loolu daal la ñu am ci loo xamante tey moom la ñu am comme satisfaction xale yi dellu si nañ fa ñu war a waxee ñu nit danañu taxaw taxawaay ba ñu war a taxaw ndax gisoon nga joow bu newoon ci làmb fii la doon jox gisoon nga am joow ci làmb fii la doon jox te loolu mu ngi fi léegi bu ñu defee lu ñu war a def rek ñu defal leen lu ñu war a def. daal di nuyoog euh, mbokki téléspectateur. waaw jërëjëf maa ngi di nuyu di leen sant. di am contentement bu mag nag ci bi waa sunu làmb woote invité ma ci cérémonie bu demee nii waa sunu làmb nag dañu yàgg collaboré ak ñoom bi mu nekkee ci CNG pendant près on a collaboré ensemble on a cheminé ensemble bu yi amee manifestation yu mel yi am ñu dem ba di ma di ma fàttaliku ñu naa def tout pour ñëw rehausser dama président ci cérémonie bi dama ci gën a kontaan di ñaanal monsieur directeur di ñaanal en même temps nga xam ne toujours wax dëgg yàlla lu rafet rek loolu def ci làmb loolu daal moom ma gën a poussé ma gën a ñëw parce que pratiquement depuis cinq ans j'ai décroché de la lutte mais c'est pour la première fois c'est ma première sortie ma réservé ko suñu ñëw ci manifestation de lutte voilà. en tant que ancien euh, vice en tant que ancien vice président du CNG de lutte tey euh, euh, ak làmb ji ni mu tekkee nii ak ak tolof tolof yi mu jàkkoonteel ban gis-gis nga ci am. waaw xam nga nag pour ne pas gêner mes anciens collaborateurs du ma porter un jugement soit de valeur wala leneen dama leen di bàyyi rek ñu liggéey ba bés bu ñu bàyyee comme man bu boobaa dañ mën a évaluer seet li ñu def lan la voilà. Euh, tey ba amoon message boo xam ne dañ koy lancé jëme ko ci euh, ñi nga xam ne ñoo ngànk làmb ji ak mbër yi lan lay doon. ah xanaa ñu jéem a am une collaboration franche et rek xam ne euh, kilifa làmb ñoo leen njabootee. ay rëq-rëq dana am des fois mais dañuy woote di waxtaanante di rectifier au fur et à pour que làmb gën a jëm kanam parce que sport national la dañ ko war di ko rafetal à tout moment loolu daal laa am loo naa leen ko lancer message voilà. tey rek euh, ci réaction kilifa yi nga xam ne ñoo fi am nañ fi ki nga xam ni mooy euh, suñu papa Baytir Ndoye di président écurie Yoff euh, kon papa ginnaaw bañ la bàyyee nga nuyu téléspectateurs yi ñu daan ñëw am ay laaj ak tontu yi ñu dox suñu diggante. waaw salaamaaleykum jërëjëf maa ngi nuyu téléspectateur yëpp yéen itam di leen nuyu leen di nuyu di leen gërëm di yàlla di ngeen fiy eh, loolu en tant que nga nekk président écurie Yoff ñu jël li nga xam ne mooy ndam li ba tax mu koy feete fii muy lamb d'or tey ban yëg-yëg nga mais sant yàlla fierté contenté. consommer euh, ak humilité da xam ne yàlla mi dara teewul euh, euh, seul le travail paye dañu liggéey parce que vraiment ku liggéeyul dara room dara liggéey nañu yaakaaroon du ñun rek xëy na yàlla si ñun la ko dogal mais comme ni may waxee rek seul le travail paye ñu ngi nuyu ñëpp di. jël nuyoo bi si loxol kilifa dëkk bi parce que dañu fekk kilifa mu jaraaf seen liggéey mi toog ñu ngi koy jox nuyoo yoof mu lawal ko di nuyu làmb bépp di ko teg si loxol le président Baytiir Ndoye mi xam mooy président écurie euh, je pense que lii moom lu rafet la ñu jël di ko jox raaya donc Yoff gëm moo si kontaan donc ñu di leen félicité di leen encouragé xam na tey jii li bésu Abdoulaye Diouf Sall moo waroon ñëw teew mais yàlla dafa dëggal président da ko yebal fële sa wakaam benn événement bu fa am xam naa bu teel a jóge foofu sax mën naa mu fekk ñu fii mais donc li daal kontaan nañ si trop kontaan di félicité bu baax a baax boobu waa écurie Yoff euh, tey euh, en tant que ngeen nekk le premier magistrat de de cette localité tey ban sentiment nga am ci envers euh, la jeunesse surtout ak ci li nga xam mooy écurie Yoff sentiment de satisfaction rek lañ si am parce que comme ni ma la ko waxee parce que tey jii bu fekkee lii dafa am mu dal si yoof na mel na ni tey jii lii mair lañ ko defal parce que moom mooy premier magistrat dëkk bi donc bu ñuy honoré ay lutteurs moom la mel ni ab Diouf Sarr en premier lañu ñu donc moo tax yoof kontaan nañ si trop di gën a encouragé donc waaye écurie yoof di leen wax yaa raaya bi ñu leen jox yàlla na leen jik incha waaw maa ngi leen di remercier si opportunité bi. Euh, dañu organiser suñu làmb door parce que làmb mooy suñu cosaan làmb mooy suñu sport national te depuis 19 euh, décembre 2005 buy suñu làmb di exister euh, dañu doon def classement des écuries donc depuis daaw ñu décidé ne que vraiment dañ ko war a fësal ñu def ko suñu làmb door bu nga xam ne day nekk manifestation day nekk cérémonie ñu jox un trophée à l'écurie la plus performante de la saison loolu buñ ko defee c'est pour que sénégalais yi mun a sargal euh, suñu làmb mun a sargal suñu lutteurs yi ndax ñu ngi def lu rëy euh, tey ci manifestation bi am na ay personnalités yu bare yu fi teew ku mel ni euh, président Cheikh Tidiane Ndiaye bu toog fii suma wet ak ñeneen nit les autorités de Yoff loolu yëpp pour mun a sargal écurie bu nga xam ne si 2019 bi saison 2018 2019 moom moo si gën a fës muy écurie du Yoff bu nga xam ne ñoo ngi leen di féliciter euh, pour ñaan yàlla làmb gën a développé wu. Euh, ginnaaw kàddu yooyu nga xam ni euh, jotal nga ko jëme ko ci li nga xam ne rek mooy analyse lañ ko mën a wax tey boo fekkoon ni da nga am message boo xamante ni en tant que directeur bi nga xam ni mooy journal boo xam ni mooy suñu làmb di yëngatu ci wàllu làmb kese. ci Sénégal loolu tey bu fekkoon ni am nga benn jàngat booy def ci fi làmb ji toll ak takk témb gi ci nit ñi làmb laamee lan lay doon. waaw xam nga làmb suñu cosaan la euh, làmb nu mu développé Sénégal développé ko feneen euh, la preuve euh, Sénégal rek moo am journal quotidien bu nga xam ne làmb rek lay lay soo jëlee rajo yi soo jëlee télé yi tamit di nga gis ne émission làmb yi vraiment bare nañ fa. donc làmb am na place suñu réew euh, ñu ñaan yàlla nag làmb gën a développé wu ndax am nañu tey arène nationale euh, tey euh, foo mun munti organiser làmb tamit nit ñi dañu uyu ñu mun a fexe ay milliers milliers sénégalais yi nga xam ne ñu ngi jëfle pour làmb ñu mun si dund ñu mun si tedd comme ay sportifs internationaux yi yu mel ni ay footballeur ay Messi ay Ronaldo wala les basketteurs ay LeBron James ak yooyu donc ou bien athlétisme dégg nga ñun suñu làmb tamit ñu mun ko développer te ñu mun ko tas sax si sous région bi ak si monde bi ndax mu nekk spectacle ndax fépp am spectacle dégg nga dina am ay ressources yoo xam ne nit ñi dinañ si mën a dund. waaw gannaaw bi ñu sant yàlla subhaanahu wa taala julli ci yonent bi sallallahu alayhi ñu ngi sant sëriñ suñu sëriñ abu Aboubacar si di ñaan yàlla yal yàlla yokk leeram ñu ci barkeem di nuyu nag képp ku fi teew di ci jiital nag ñaan jàmm ci réew mi ndax li ñuy def yëpp jàmm rek a tax ñu man ka kon jàmm jooju yàlla na sax ci barke Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam suñu teewaay fii tey nag ah xam naa ne daal jataayu làmb mun naa wax ne huit ans ngi nii neuf ans yoo xam ne tooguma ci jataayu làmb kon tey bu ma yàlla indee fii jataayu làmb eh, ak eh, li ñu yàlla Euh, defal ci làmb kon danañu dellu santaat yàlla ci loolu waaye di wax ni daal lii bokk na ci liy dundal làmb te làmb suñu cosaan la lu moom la nit nag li moom moom sàmm ka ci moom kon defe naa ne lii sunu làmb def lu am am solo la ñoo def ko nag ci yoof yoof di dëkku cosaan yàlla dimbali ñu nag ci ñun bokk nañ ci ñi nga xam ne bi ma nekkee ci làmb dundalaat nañu làmb ci yoof parce que euh, am na làmba yu mag lu ñu fi organisé ba tax làmb dundaat ci la ñoom Malick Niang ñi génne kon loolu suñu jataay fii tey dafay am solo euh, xam naa nag suñu génn ci làmb tey euh, jàpp naa ne am na luñ ci metti parce que bu ma amee lu ma metti tey ci génn bi ma génn ci làmb bu ma ci amee lu ma metti rek moo di aada ak cosaan bi nga xam ni moom la ñu indi woon aada ak cosaan bi nga xam ni moom lañu indi woon muy label boo xam ni bi ñu génnee ci làmb dañu demaat ak moom gisaatu keneen ku koy def donc bu ma amee lu may metti rek ci làmb ji peut-être xëy na touche touche boobu rek mooy li ma ci metti bu ma sañoon daal am ku ñëw ci xale yi di def lañ doon def ndax bi ma ñëwee léegi ci géew bi gis gaal gi dafa ma delloo ci euh, lu bare bari mais nag loolu yëpp xëy na à l'avenir dana ñëw mais daal ñu jàpp ci rek ñun nag maa ngi confirmé waat nag ni jàpp naa ne duma ma dellu siwaat ci làmb parce que jàpp naa ni xalaatuma ne danaa dellu siwaat ci làmb en tout cas dara dara dara traversé wu ma lu tax ma yaakaar ni war naa mën a dellu si si làmb kon nag ñu ci nekk ñu ñaanal leen ñu gën ci góorgóorlu ñaan ñaan daal que cosaan bi dellu siwaat si biir làmb ji ma daal loolu lay ñaan ci barke est-ce que mën nañu xam lu tax euh, ki nga xam ni mooy promoteur Palla dem ba génn loo xam ci làmb ji ndax dafa metti wala wala affaire yi daal moo doxatul. non non xam nga man làmb du suma métier man dama am suma liggéey j'ai pas de souci mus naa wax ne musuma gagné dërëm ci làmb waaye musuma perte ñaar dërëm ci làmb bon gain nag buñ ko waxee dañuy yaakaar ne looy jot la xaalis perte na aussi dañuy defee ne xaalis la or ñun biñ ci dañ nekk ay professionnel ci suñu wàllu liggéey am ci xarañte nag macha allah ba nga xam ne lépp lu ñuy def dañ koy defal business plan parce que damay wax ne nit ki war nga mën a xam li ngay organiser jëm ñaata la ak foo koy jëlee donc ñun loolu tax ñu ne ñun mësuñu mësuñu perte ci làmb waaye aussi mësuñu gagné ci làmb bu jëmee ci wàllu xaalis mësuñu si perte xaalis mësuñu si gagné xaalis te am nañ ci satisfaction durant biñ ci nekkee kon jàpp naa ne côté boobu du problème mais dafa am leneen lu nga xam ne maa ngi ci loolu di organisation pèlerinage depuis 11 ans maa ngi ci loolu donc mënu ma ko booleek làmb dafa cohérent wul donc te j'ai fait mon choix da dem nag defe ji nag euh, affaire organisation pèlerinage euh, si suñu cadre suñu agence de voyage donc loolu rek moo tama ma bàyyi làmb mais du du leneen mais incha allah euh, yaakaar naa ne sous peu de temps ay xale danañu ñëw te bu ñu ñëwee ñu jàppale leen bés bu ñu gisee xale bu ñëw. ci biir làmb indiwaat culture ak cosaan incha allah danañ ko jàppale incha allah. kon euh, promoteur euh, suñ tonton Palla Mbengue ñu ngi lay sant di la gërëm. ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen encouragé merci.